Heavyweight.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 Sall Ndaw moom daal am ñeesam moo ko tuumal ne moo ko violé ba mu jaare fa ëmb xale bi mu ngi doon def classe terminale am 18 ans laa wax Sall Ndaw mi ñu jiñ ne moo weele nag nee ñu mare la woon ci l'armée bi waaye nag daa mujj doon ab convoyeur de fonds sa waay la am ñaari doom waa ji nag nee na ñu daa xaar ba soxna si di tantaay xale bi génn mu passé à l'action waaye ma ne yenn yi feebar la laa wax ci noonu la dal di forcer xale bi dal di tëdd ak moom te nag ba mu ko defee benn yoon yamu ci dee sa waay yoonu tool la ko mujjee def ndax xale bi nee na def na ko ko ay yooni yooni yoon feebar laa wax moo taxit sa waay plainte lañu ko mujjee indil di ko toppee ci wàllum viol boo xam ne ab ëmb da cee topp <laughs> ma ne ko sa pen nar naa diis nag sa waay nag naka noonu bi mu jotee ci plainte bi foox la def daw gàddaay kenn gisatu ko ba fi mu ne yoonang koy wër <laughs> waay waay xam nga ne da feeñ waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Ranérou romb na doy war ab soxna daal moo fa jàpp ab wujj jëm ko ay semmiñ ba mu jaare fa ñàkk bakkanam waay waay cay mim réew ma aawe bee def lu ni mel ñaareel bi laa wax mbir mi mu ngi xewee ca daaru rahman juróomi kilomètre tàqali koog rane ferloo xew juróom ñetti fan ci weeru soñ bi weesu yëfi nag nee nañu histoire bu doxoon ci seen i diggante ay doom moo ko indi ba wujj bi ak ñaareel bi jàppante gannaaw si seen borom kër atte leen calme leen arrangé ba yaakaar ne jeex na waaye aawo bi mel ni ku ñu xabtal <laughs> ma ne fiiraange mën naa defloo nit lu ne laa wax moo taxit aawo bi mujj naa def musiba ndax daa xaar ba seen borom kër génn mu jël semmiñam fekk ñaareel bi mu tëdd di nelaw mu door ko ko ci bopp laa wax laa ilaha illallah ba si bi jaare fa ñàkk bakkanam aaw bi nag bi mu defee ñaawteef bi gis ne def na njombelu rëy faax daw la def bàyyi ñaareel bi fu mu tëdd deret di sangu ko ma ne ko yow de sa woy dootul fay mokk bi ñu alerté gendarmerie bu brigade territoire bu raneeru Ferlo ci la ñu toppee AO bi ba ne ko niib teg ko <laughs> waaw góore waay dal koy defeere ca parquet néewu ñaareel bi nag moom ñu yóbbu ko ca hôpital régional bu Ourossogui ngir defal ko ay autopsie <laughs> ma ne lii moo tax Cale aawa point final ndax yu mel ni lay bañ moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax ma génn réew mi nag dem ba Nigéria ca fa ñu naan Abuja ab waay buy wéyoo ci turu makkan wala ayadun moom daal moo fa ñàkk liggéeyam mujj doon ab naka noonu ci la dem dajee coffre-fortu jabaram dal di ne tungaañ xaalis bi fa nekk eskay <laughs> ñoom ñaar nag ñu mujj jàppante xuloo bu tar dox ci seen diggante naka noonu waa ji dal di mer yéeg ci otom arrière dal ci jabar ji jaar ci kam ba mu jaare fa ñàkk bakkanam hop hop mu sa bi mu gisee na nag def na njombe loolu ci la simile ba ko defob l'accident <laughs> moo tax li ma waxoon rek l'accident yi jar nay xool moo tax ma ne jàngoro ji dala Afrique moo gën a graaw corona la wax la xew ca Thiès romb na doy war ab man daal moo fa réeroon depuis le 23 avril bi weesu taximan boobu nag te ñu mujjee koo gis ñu faat ko ba noppi sànni ko ci ab caniveau am na leneen lu bees lu xewaat ci mbir mi ndax ki ñu njort ne moo faat waa man boobu di woo ci turu Cheikh Mbaye du kenn ku dul ab jarbaatam waaw man maa ngi Sénégal wala ndax jarbaatam boobu dañ ko fekkee ak ay objet xam ne taximan boobu di Cheikh Mbaye mooy borom te it nee nañu ñoom ñaar daawuñu jaaroo taal xaja ki ba moo tax fi mu ne l'enquête bi ki mu visé mooy jarbaatam boobu waay waay est-ce que maa ngi Sénégal moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca station bu Kër Massar doy na war ñaari guinéen ñoo fa doon xeex di ay mag ak rakk naka noonu ci la rakk ji dal di bojjee paaka jam ko mag ñi mu ñakk bakkanam ci saasi mbir mi mu ngi xew ay booru 19 heures fitna baaxul fitna baaxul de ay waay géej gaa ngi jeexal suñu doom yi ay waay sécuriser leen place yi ñu interdit waay réew mi nag mënuñu at bu jot ñu dëkkee woy wi ñu woyoon at bu ne saa bu tàngoor gi jibee rek géej gi tàmbalee lekk suñu doom yi te nag li ko indi nag du dara lu dul place interdit di kenn sécuriser wu ko dañoo bàyyi ndaw ñi fax wuti ko bu ko defee géej gi dëkkee leen a wan ni ay jën te it place yi nga xam ne ni tey war nañ faa sangoo place yëpp def nañ ko ay place privée moo tax ne jàngoro ji dal réew moo gën a grave góor a xuma nag ñun borom kër yi soo moytul ñun ñëpp danañu xañ ay xari tabaski ndax góor a xumba ne mouvement d'humeur bi nga xam ne nii dina ko yëkkati ci période tabaski bi mooy camion gros porteur yi benn du ci transporter ay xar indi ci senegal waaye góor a xuma mi moom lu muy def ni ma ne góor a xuma boo moytul dana tas sa yu bari laa la wax ndax ku xam senegal tabaski xar li muy def ci diggante sa yi nga taxaw ne benn camion du transporter xar yi indi ci réew mi waay waay waay waay mars jot na nag mars nag jot na wax naa leen ko borom kër yëpp nañ taxaw ñu dem fees dell place de l'obélisque fees fa dell del taxaw ndax góor a xuma mi dafa nar a tas suñuy sëy mu doonoon seen xibaaru buzz di daje samedi ci yeneen xibaaru buzz